Je m'appelle Ibrahim Sori Bangoura, je le coordonnateur local du PACOP SPE, des communautés la protection de l'enfant et du système protection de l'enfant de Pékin. Oui, aujourd'hui nous de l'enfant africain. Donc aujourd'hui c'est la 32e édition et dont nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui des programmes de SOS Village d'enfants qui sont au niveau la niveau de Dakar. Et cela aussi, nous sommes euh, accompagnés sur, ce, sur, cela avec les acteurs communautaires de la banlieue et aussi les autorités ainsi que les municipalités. Le choix à Pékin, c'est que c'est de manière rotative, mais aujourd'hui, on, a, on voit beaucoup, le, le thème c'est l'élimination Euh, des pratiques néfastes euh, affectant les, les enfants. Et aujourd'hui, on voit dans la banlieue beaucoup de problèmes de protection qui justifient notre intervention. C'est ce qui justifie et ce qui inspire aussi le choix de Pékin pour la mise en œuvre de nos programmes, mais aussi de l'organisation des, des, des activités de cette partager avec les communautés, avec les autorités, avec les parents sur les préoccupations. Oui, aujourd'hui, euh, nous faisons une intervention tripartite. Nous faisons tout donc, pour faire de la, au niveau des enfants qu'il y ait de l'autoprotection et aussi sensibiliser les parents aussi sur les dangers euh, qui guettent leurs enfants, mais aussi sur des systèmes, la, la discipline positive pour essayer au, au niveau des maisons, au niveau des communautés, qu'il y ait une conscience collective pour la protection de l'enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans notre nouveau programme que nous allons lancer bientôt, le PACOP SPE, nous parlons du système de protection. Parce que nous, SOS Village d'enfants, on se dit il faut toute une communauté pour protéger un enfant. Raison pour laquelle notre intervention va, euh, à l'encontre, à, euh, à des enfants, à l'endroit des enfants. Notre prochaine défi. Aujourd'hui, notre défi, c'est lutter contre la perte de la tutelle parentale au niveau de la banlieue et tout ce qui est risque de perte de tutelle parentale puisse être donc maintenant à côté de ça. mi ngi tudd Ibrahima Sori Bangoura nekk coordonnateur local bu PACOP Pikine euh, PACOP SPE Pikine tey nag ndaje bi da nga fay def pour daal di sargal gone wu Afrique bi mooy fanweeru ñaareel euh, édition waaye choix wu Pikine soo leen ko déggee nag dafa nekk loo xam ne ni dañu gis ne ni banlieue bi dañ fi ak eh, ak yelleefu gone yu bëre yoo xam ne ni ci dañ ko xaw a salfaañee loolu tey mooy moo waral sax ñu taxaw fi di fi defal amal ay programme yu bëre yoo xam ne programme yuy dox la ak ay projet ci loolu lool nag tey lanu woo tey képp ci koo xam ne ni programme mu SOS ga bu programme de Dakar ñoom ñëpp ñu daal di ñëw fii tey daal di ñëw ànd ñun ñu feete bis bi waaye feete bi nag lan la ndax danoo ne danoo jël thème bi ne dañ koy def pour élimination des pratiques néfastes loolu nag occasion la pour ñun aussi nu daal di waxtaana fami yi waxtaana aussi njiit yi kilifa yi waxtaan ak aussi ak maire yi ak ñëpp ñi nga xam ne ni nitu gox leen ngir ñu daal di mën a defaraat taxawaay yi ba nga xam ne ni lépp loo xam ne mi ngi dal ci kaw gone yi wàññeeku fi loolu loolu SOS village d'enfants soo leen déggee dan naan ñoom dan naan il faut toute une communauté gox bu yëpp pour sàmm benn gone loolu moo waral ñun suñu intervention dañ koo tënk mu jëm ci gone tënk mu jëm ci waajuram waaye tamit ci goxam képp ku ci nekk am na lu ñuy def ak moom gone gi sax da nga koy wax di ko jàngal nooy def yow pour aar sa bopp wax waajuram nu mu war a doxan doxalee moom ci ay modèles yu bëre yoo xam ne ni nga koy woowee ay éducation parentale discipline positive ak yeneen ak yeneen ak communauté yi loolu noonu teen taw loolu moo waral nii tax ci fiilee ay fan ñuy danañ lancer suñu benn programme bu bees bu ñuy tuddee PACOP SPE pour daal di dooleel protection de l' waaye lépp loo xam ne système de protection de l' la au niveau de Pikine ginnaaw raay nord ginnaaw raay sud